mbokki internaute Allô Sénégal ba tey ñu ngi ci dëkk bii di diwaanu Kaba ginnaaw jiyee bi nga xamante ne daal dina fi am euh, tey ji nag ñu ñëw fi nga xamante ne fi la jiyee bi amee euh, sunu papa bi lànkoon nag place ak ki nga xamante ne daal dinay génn àddina muy euh, sëñ Xaadim ñu gën koo xam ci sëriñ Mara papa ñu ngi lay nuyu. micro. ñu ngi la fay. ñu bëggoon xam tur bi naka la. Moustapha Diallo. waaw ah, sëñ Moustapha ah, ginnaaw bu ñu la nuyoo tey tamit ñi gis na làngoo nag place ak ki nga xamante ne moo di Serigne ah, Mara nekk nag ki nga xamante ne moo fi génn àddina di ko ñaanal sunu borom yërëm ko te xaaree ko àjjana tey bu ñoo laaj ana yan kàddu nga xam ci moom ana lan nga ñuy wax. kanaa eh, ñaan yàlla. yàlla na la yàlla xaaree àjjana. Mm-hmm. lu ñu xamante moom daal. bu mm-hmm. néegu yaru la. Mm-hmm. te am teggin. xëy daanu daan daan dooleem. wut lu maam yit ko njabootam. loolu laa xam ci moom dëgg la amu ci benn fitna mhm. amu ci kenn xaar ma yàlla mhm. benn baat boobu lañu am ci moom dafa yaru ndeysaan jàpp njàmburam mhm. waaw dogal nag soo xasee ñëw yàlla ko dogal dëgg la loolu lañ ci xam ndax jiyee ji bi muy am fii la la fekk non maa ngi fii daf maa ngi si place bi waaye taxuma gën gën ma dem fenn euh, tey ji bi nga yëgee cool yi ndax euh, tey bi bi mbir bi amee tamit amul lenn loo si xamante ne xam nga ko ci fanaan ma tëdd ko. Mhm. ma tëdd ko mu wax dëkk kenn ko. Mhm. ko xëy wa waa waa këram. Mhm. demul lu mu leen di indil. loolu dal la ci. kenn ko ko. dëgg yàlla. ñun ñëpp la métti. ndeysaan képp ku am njaboot. te bëgg sa bopp dara. neexul la tey neexul la léegi du la mos a neex. dëgg la waaw loolu moom neexul fenn. waaw ab jullit bu mu mën a nekk. bëgg lu baax. bu fekkee du la neex. dëgg la waaw de laa ci xam. Euh, ginnaaw loolu tamit ndax jëm ji nga xamante ne moo amal jëye jile ndax xamoon nga ko bu baax a baax a baax. kan la ci ñoom. Euh, ki nga xamante ne moo faat euh, sëñ Mara. non loolu taxuma xam ko loolu. Mhm. loolu taxuma xam ko loolu. Mhm. waaw ñoom ñoo bokk ci dëkk bi nag waaye mhm. taxuma xam ndax tamit mosoo leen am yéen ñaa tamit problème ndax nee nañu woon ko xaw ko xawoon lëj la. lëj la woon na nag. dafa lëj la woon na wax dëgg yàlla. bu bëggee dëgg dëgg rek. jamono bi may jaay fii xaal ji man ci sama wàllu bopp. lii ci man la waroon a dal. daaw ci maa la njëkk attaque fii allahu akbar maa ngi sotti suma jala ma xaal maa la njëkk attaque hmm? yàlla def yàlla fi def ndox ay boor timis lépp hmm. daje fi hmm. waaw man ma wax dëgg li ma wax dëgg teel a ci naka la njëkkoon attaque ci ci ci naka ci naka la la naroon attaqué maa ngi sotti suma bagage da ko jaay day xool suma bagage da ko sàcc micro ñu tere ko ko tere ko ba taay toujours mu ñëw di sax sama bagage. day ñëw di ko bëgg jël maanaam ak dooleem. dafay ñëw di ko jël siifaat dooleem. dama am ndimbal yàlla ci ma la na ko a ma ma la xam naa ko ci mhm. nag xañ na yàlla sax daf ma cee tombal. ndax dama xëy am ay bagages yu ma doon jël ci marché bi. bi ma xëyee maa ngi gis. Euh, booy bi foofu mu toogan Ablaye. Mhm. mooy ki ko waaw maa ngi gis mu toogan foofu ci bu benn moto. Mhm. ba borom oto bi mu taxaw ci kanamam naa ko bandi jakarta muy reetaan léegi man bi ma jëlee garniture yi may jël foofu maa ngi jaar ci jaaykatu ndekki bi jël fi ndekki dem fële di naan café mm-hmm. bi ma naanee kafe bay teg kaasu café bi ci laa gis mbay di daw léegi bi ma gisee mbay di daw ma dabi mbay ne ñii koy jàpp duñ bokkam comme man mi doomu nijaayam naa ko jàpp ma àgg mbay ne ma bu ma laal bi ma ko toppee ba à fin ci la ne Ablaye dafa war a dee ma ne ko lu mu ne ma Ablaye dafa rey Mara mm-hmm. ci laa tourné dem si hôpital bi euh, man bi mu ne dafa rey rek ma daw jëmu garage gis nit ñi jëm hôpital ma dem mhm. ñu tëj ko ci benn barab naan xaar leen ñi ngi koy faj ah bu ma xamee ne dañ koo tëj ci barab naa ñi ngi koy faj nag ci laa xam ne yàlla dogal na li gën waaye nag hôpital ñoo ko tëj ne dañ koy faj fekk dem na waaw lii maanaam euh, fi nga xam ne fi la histoire bi di départ mooy mm-hmm. Mm-hmm. waajur bu nekk mm-hmm. dafa war a yar ak njabootam teg ko ci siraatal mu mustaqim ba ëllëg si biir yi nga xam ne mooy xew ñu moytu ko bu baax ndax Ablaye moomu suñ booy la woon fii nekk di jàng ñaw ci magam ba mu yàgg mu bàyyi ko di jàng mécanicien yi waaw Ablaye mooy ki jëf-jëf ji waaw mujj gi nekk fi di gens oh. di mànde am nga dëgg moom bu jotee dangay wax lépp. dëgg la euh, am ay gang yu muy àndal yoo xam ne nii. Mhm. maanaam ñoo yem jikko parce que euh, képp képp koo gis rek. Mhm. kam yemal jikko lay àndal. Mhm. léegi nag lii du tay rek. ndax mais ñoom dañoo jote woon fen wala dañoo yàgg am ay problème wala comme que ñoo bokk dëkk bi est-ce que histoire boo xamante ne jote nañ ko ba ñuy xale wala lu yàgg la wala. waaw ndax. Euh, gëwuma loolu ndax Ablaye mhm. maam magam bi ko doon jàngal ñëw nga xam ne ñaari e, mag doxaat na ci seen diggante mhm. mooy moroomu Mara mhm. euh, mbay moomu rek dem bi ma ko gisee gendarmerie daf mu ne ma ñi maa dugg kaba ndax dimanche bi passé rek kër Mara la añe mbay magu Ablaye kon nga xam ne dëkk bi daanaka mbokki neen lan leneen li ci tege mooy Ablaye bi mu jugee foofu dafa nekk ci dëkk bi di ruube rek mm-hmm. bërki démb rek la busa mi nga xam ne doomu imam Moussa Fall la mm-hmm. dafa dugg këram mm-hmm. di joteeg doomam génneel ko jam ba busa dem gendarmerie mais nag Ablaye mi def loolu moo génneel jam jam busa waaw ba busa yóbbu ko gendarmerie ba nit ñi def ci intervention fii nag euh, duñu duñu wax dëgg maanaam dañuy fay lakk goo xam ne nii ñoom ñoo koy taal ba pare di ko fay parce que nit bala ngay xam fi nga war a yam ci moom ak fi mu war a yam ci moom il faut ngeen dem ci yoon ba ñëw mhm. leneen li ci tegee it Ablaye yàgg nay nekk fii di euh, wax nañ ne jàllo mii di jaay xaal xama mhm. man damay tudd ay mhm. fekk na ko fa ba tàyyi génneel ko jam ne gune yi jël leen lu leen neex ci xaal ji hmm? euh, geneen kilifa it wax na ne baayam ñëw na ci ba tàyyi ci ci moom nekkoo ko dem naa gendarmerie ne leen Ablaye mii de sama dooma waaye daa yor lu ma mën a rey ñëw leen dimbali ma ci hmm? kon lii te gendarmerie deful dara ci lool noonoo non ko mosuma dégg ñu ne gendarmerie jël na Ablaye pour yeddal ko euh, pour yaral ko baayam euh, leneen li ci tege yin mooy hmm. euh, kilifa suy bay bayal doomam ëllëg ak si biir daf koy indi lii rek dëgg ndax lii am tey nii nii ca weñ gaa nga bañe ca mbànjaxaan nga ca ba muy gone. Mhm. ca lan ko bàyyi di ko bay bayal lu ko neex mu def. mais comme que bàyyi jur yi bàyyi nañ noonu waa dëkk bi nan moo nekkoon seen taxawaay ba naaw ba heure bu ñu xëyee gis Ablaye yor paaka wala heure ñu xëyee gis ko muy menacé kii wala mu jotee kii lan lan moo nekkoon taxawaay waa dëkk bi ci loolu. waaw xam nga uh, soo gisee lii am Ablaye daawut yor paaka nit ñi di ko gis. Mhm. xaj na kay mën naa dugg ak nit ci histoire ba ci benn kii mu génne paaka mais daana gens ñu koy gis daana màndi mhm. ñu koy gis. fan yee nag bi mu jógee ci mécanicien bi. Mhm. Euh, ay rumeur sax wax nañu ne Ablaye doon na liggéey mécanicien xombal ci benn gaaraas mhm. commandant bu xombal bi indi fa otoom. Mhm. di ko defarlu mu sàcc ñaari téléphones yi commandant. Hmm. léegi kon kooku ñoo ñoo la gën a xam Ablaye. bi mu xëyee foofu mu toogan nag xam naa waajal na jamam ndax man euh, ni ma ko gisee ku préparé la woon. moom daan na faral di xëy ci garage wala jour boobu Mara rek ko tax a xëy ci garage noonu moom Dakar bi mu jugee ci Jakarta ak mécanicien bi dafa dem dakaar di liggéey buse xam nga dof mm-hmm. nga jël dugal ko ci biir biiri paaka mm-hmm. maam buse la doon liggéey seeraas boobu ba tey parents yaa ngi koy wax lii ndax wax dëgg sonal na ay waajuram mm-hmm. waaye lii lépp ñoom ñoo ko ko ko ko ci tàgget kon nag bu lii amee tey li nu war ñun ñun ngéwél gi waaw ñunu nee na ñun ngéwél gi ñooy fat sàcc ñooy fat kun xamut. Mm-hmm. xam nga dëgg du neex. Mm-hmm. gaaraas ba seetaan nan ba mbir mi am. Mm-hmm. ndax bu ñuy xeex dan naa ñunu nee na ngéwél yi la leneen li ci des. mooy ñun ñoo war a am fulla ci sunu bopp ndax am na waa reefan ñu fa nekk di taxi Jakarta waa reefan ñoo ñëwee xale bu góor bu ci jóg liggéey moo la tax a jóg ak wut xaalis toxoo naanoo xaalis moo la tax a jóg moo tax boo xëyee di liggéey ba timis jot da ngay am la nga euh, am mu doy la nga dem ñibbi. non maanaam gën a ma matériel. maanaam gën a lu ma matériel. Mhm. Mhm. Euh, tey tamit gis nañ dëkk bi fi ñëwee tamit mu mel ni maanaam euh, dafa am li lii di insécurité maanaam sécurité bi li war dëgg dëmi tamit amu fi. non wax dëgg man déw ma nag fenn. Mhm. contrôlé ma loolu man su ma xëyee maa ngi sama place boobu. comme que tamit yaa ngi ci kaw tali bi ndax lu mel ni mos ko fee gis wala tey nit xeex ba jàmm moroom ndax mos a am ko ko yàgg. la première fois. ma gis ko fii ci dëkk wala ci tegaw tali bi ma nekkee fii léegi. c'est la première fois ma gis ko fii. waaw. lu mel nii tamit yaa ngi ko fi yaa fi door a gis yu mel nii. si maa ngi ko soog a gis. waaw tey naka nga dundee tamit te mbir bi ginnaaw bi mu amee. kana naxal lu neexul. xol yëpp neexul am benn xel xol bu neex. xol yi moom neexul. képp ku bëgg lu baax ab jullit. neexu la du la neex. moo tax neexul. dëgg la xol yëpp a ngi eh, jooy. Euh, mu nekk nax rek tiis di ko ñaanal suñu borom yërëm ko te xaaree a àjjana tey jii en tant que mag euh, ndax dañu ne mag baax bàyyi ci an yan kàddu ngay dénk suñu njiit yi nga xamante ne ñoo yor wàllum li nga xamante ne moo di yar gi. kon naa ñu yar njaboot. Mhm. nañ yar suñu njaboot. Mhm. nañ yor njaboot. Mhm. ku yor sa njaboot yor. ku am sa doom yaral sa doom. yar leen njaboot nañ yar suñu njaboot gi. ku la waxul loolu waxul la am nañ yar suñu njaboot. mënuma ci sama doom dara. ëllëg dana def dana dugal loo xam doo ci gën. nañ yar suñu njaboot. waaw. Mhm. Euh, sa kàddu gu mujj. suma kàddu gi mujj loolu. Mhm. nañu góorgóorlu ci sum bopp. Mhm. liggéey jàmm yàlla. la nañu liggéey jàmm yàlla. yar suñu njaboot bii. lii du mujj de. lii du mujj. nañu góorlu ci sum bopp. yar suñu xale yi liggéey jàmm yàlla. dëgg mais xam nga ne arme blanche fu génn. ñu jàmm kenn ki muy naaj. keneen ki boo yoree oto sax war ngaa daw mbëkk ko mu daanu. du raw. mais ñu bàyyi lépp tey jii ñu ngi ñëw fii ne dañuy jaale. Mm. mais ñu ci bëri ay saytaane lan doomu aadama dañ ne la boo gisee loo xam ne nii baaxul. Mm-hmm. da koy dindi ci sa loxo. soo ko mënta dindi ci sa loxo nga dindi ko ci sa laam. mais dañ koo seetaan mu ko ay jam jam ba keroog muy sedd. waaw xam nga jam dafa gaaw. ñetti yoon la ko jam. Mm-hmm. waaw ndax jam na ko benn fii jamaat ko benn fii. Mm-hmm. daal di jamaat fii ci suufu ween bi ci góos bi. bi waaw. kon loolu bu amee ñii mën nañoo dem nag ndax Sénégal dañoo dañ kumpa ñii mën nañoo dem di sauver Mara mais ñeneen ñi. Mm-hmm. ak kenn mu mën a def. Mm-hmm. wërta raw déedéet. mais ñu bàyyi lépp ba tey jii ñu ñëw fii di jaale yor seeni mille francs ay deux mille mais seetaan la ñu war a bàyyi. Mm-hmm. léegi ana ana ana kañ def jëf ci moom. waaw Ablaye euh, xaj na suñ borom moo dogal reppul ndax waa dëkk bi génnal nañ ne suñ ko gisee danañ ko faat léegi mu daw làqatu bi mu dawee làqatu ba guddi. fekk ñun denc nan ba ñëw euh, après moom ci la jóge fa mu làqatu woon hmm. dellu siwaat ba seen kër hmm? bi dellu siwaatee ba seen kër après ci la ay parents woo gendarmerie ne leen mi ngi fii après ñun ñu ngi dégg ay rumeur ne jàpp nañ ko Touba xam nga gendarmerie Sénégal dañoo am technique. Hmm. suñ ne jàpp nañ ko Touba xel yëpp day nekk ci Touba ak lu koy jëlee. fekk booba ñoom xañ na am nañ information ne mi ngi fii ci kër gi. waaw ñoom ñu ñëw ñoom ñun robee bay ñëw di waxtaan ñoom ñu ñëw jël ko dem. après moom it am na ay gaañu gaañu euh, démb biñ demee gendarmerie ñu ngi naan ñu ngi koy defal scanner rek nangam nangam mais mm-hmm. xam nga ne war naa romb foofu. Mm-hmm. mais am ngeen yaqin que mi ngi jamono ji wala am ngeen ay euh, information que ni mi ci loxoy yoon moom. waaw lu leer. parce que démb yaayam ma nga fa ak papaam. ñu commandant ma gis ko nii parce que image gendarmerie sax. Hmm. après naa leen. mais moom est-ce que wér na carrément maanaam mi ngi xelam wala amul lu koy def loo jëf ji lu koy xiirtal ci loolu comme li ñuy wax parfois ay rabak wala mu nekk koo xamante ne dafa am matadi xel. réew <laughs> réew de mooy wér de moom. Hmm. réew parce que soo fekkee yenn saa yi da ngay saaga sa papa yow génneel ko jaasi wala saaga sa yaay génneel ko paaka. waa kooku du feebaru xel. Mhm. li ñuy ñaan daal mooy. suñu kaba gi mhm. comme jël ngeen fi image yu bëri euh, ñu bañ a guddal lool. maanaam dañoo soxla brigade de gendarmerie. parce que kaba dafa boot reefan te reefan moo ëpp doole xombal. Mhm. waaw. reefan moo ëpp doole xombal fop kon ñaari dëkk yu demee noonu. suñ ko amul ci kaw talibeen ñu am ko ci diggante bi. parce que liñ fii boo fi sàccen daw kenn du lay mën a jàpp. lëndëm na insécurité bi bari na. Mhm. bagages yi luus ci biir bari na am na ay bagages yoo xam ne gendarmerie rek moo ko mën a régle waaw kon dëkk bu toll ni Kaba. Mhm. Euh, Cheikh ak Ndangal ma ak yeneen dëkk. yu mhm. bëri fii nii nii nii en tant commune nu Jéyeen Sarax bépp commune entière amul benn brigade de gendarmerie. loolu dafa ah. dafa xaw a doy waar quoi. xaw na doy waar. kon ñu ngi ñaan autorité yi nga xam ne ñoo fi nekk. Hmm. éclairage public bi est-ce que yoon yi leer na nam war a leeree. waaw sécurité bi tamit waaw éclairage public bi sax gune yi fi ne benn groupe bu ñuy wax mbante gi. Hmm. ñoom ñoo dajale ay millions jënd lampadaire yi fay waa Senelec ñu monter ko. làmp yi ngay dégg ñu solaire yi. Hmm. tali bu nekk daf faa war a am. suñ tali bii jëm reefan war na fee am ba ba ba génn dëkk bi. amu ci fii lañ ko def encore it euh, dëkk bi. yàqkat yi bari na lamp yi daanaka jour bi ñu ko sampee deuxième jour bi rek camion yaa ngi arrêt arrière di ko mbëkk. Mm-hmm. ak yi nga xam ne loolu lépp bu amoon gendarmerie camion bu mbëkk dañuy woo Costa mu constaté ko. sa assurance fay affaire bi ñu sampaat làmp bi. Mm-hmm. kon daal mbir maa ngi noonu. naqari na tiis na euh, doy na waar. Mm-hmm. ndax maanaam man kër gee mu dëkk man maak ko jox. sama doomu bàjjan la. bi kër gi nekkee foofu dama ne ko fii de ni fi sunuy baay amee mhm. ni la fi sa yaay amee mhm. jëlal lii mu dem wax sama grand bi naa sa waay màgget mi may tooñ de ma ne ko tooñ ma la de boo demee samp muy sa kër parce que sa toolu maam la mhm. te benn parcelle bu nekk foofu la léegi mu samp fa di góor góorgóorlu nangoo sonn ci sëriñam nangoo sonn ci ñëpp soo gisee mbubb bi ma sol sax am na boo xam ne ñawal naa ko ci ñu nuróole ma ak moom waaye mitti nañu lool te lii suñ moytuwut commencement la mais mm. day law mm. ñaanuñu ko nag mm-hmm. ndax gune yi jóge nañ làmb te làmb man ci sama xalaatu bopp mm-hmm. yëfi dof la ci suñ dëkk bii mm-hmm. soo déggee ma yëfi dof la làmb am nañu ciy jariñu mais làmb dafa war a am fu am sécurité ñaari gendarme mënuñoo téye làmb de parce que làmb booy niñ ko jëlee mooy bëreet rek damay dem làmb wut naa jam oh. comprendre nga xew day am sax. Mhm. borom xew bi day mujj xewam du àgg nam ko neexee. Mhm. parce que lii ñu xewal ci xew yi bu fekkan brigade gendarmerie am na fa. su su xew amee boo bu naree def yenn jëf yi da ngay woo gendarmerie. parce que yor ay moto di xandal ci biiru gune gune gum dal sa tànk yëpp day damatoo. Mhm. loolu lépp nag balay nit di jóge xombal ba yi di intervention kii def loolu dem. kon daal fi may tëje mooy. di ñaan autorité yi ñu wutal ñu gendre gendarmerie. dëkk bi. luus na li fi ne lépp kenn mënu koo wax. Mm-hmm. ndawal buur dong moo ko mën a lijjante mm-hmm. kon loolu mooy suñu kàddu gu mujj ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan seen sit bi dem ba doon ay ay. télévision yu mag a mag yàlla mën na ko am na ko yàlla na leen ko defal te mm-hmm. ci barke xaadim ñu ngi mii fi jógee ndax yàlla xam na ne nag la tegal sëriñam ci màggal gi passé safar gi ñuy def fii nii euh, depuis grand bi ko doon taxawee di màggal di ko fekk Mali moom moo koy res. Oh. jënd nag jënd nag daal di safar ba pare mboolem ku loon jàpp ci safar gi mu mm. lijjanti ba nga am paas. nga mm. màggale. ndeysaan kon ñi ngi ñaan it suñu borom xaare ko àjjana. amiin te yéen it mu wéral seen seen cër. Mm-hmm. te yàggal seen taxawaay. amiin waay asalaamaaleykum wa mm-hmm. am nañ yaakaar ca fa jëm ndax góor yàlla la Baay Faal la am nañ yaakaar ni itam sëriñam dana ko teeru am nañ yaakaar ni itam. ku tedd ki boroom Touba dana ko teeru ci àjjana yi gën a kawe ndax jàmbaar la woon Baay Faal la woon gërëyee la woon ci kàddug seede yi nga xamante ne jot na fay jug kàddu yëpp benn la mooy Mara jàmbaar la woon ki def jëf ji nag nga ñuy wax yoon na def liggéeyam te bu mu am exception ci benn yoon amul intervention amul ñaan amul dara na yoon def liggéey bi na mu ko waree ci kaw ki nga xamante ne moom moo def lii ndax nekk ndaw nekk jàmbaar nekk gërëyee ndoon soutien de am soxna am njaboot gu ndaw ñu faat la ci anam gu mel nii kon war nañoo def taxaw xoolaat defaat taxaw jàngat bu baax a baax a baax jaajëfal nañu képp koo xamante ni doon nga bàyyi xel émission bi jox leen dig daje ëllëg seen yeneen émission jërë ngeen jëf